Pablo le vainqueur sa champion bàyyi noonu waaye ana sama doom ji Galas Thiaré bàyyi Salima ngay ziar waaw waaw ehe eh, doomu betenti bi doomu Bosinkan bi waaw waaw doomu Misira bi Toubacouta Sangako Sokone nee naa la Niombato gi kii borom ba ne ko la ñu le Gandia Fama oh l'enfant s'est répété waaw waaw Gandia Fama nee na gën a gaaw oh, waaw ngi noonu nee na gannaaw yii gaay tirage dañuy demande nee na ñëpp daa am doole gàcce faama loolu la wax laa ilaaha illallaah Fils de Doy Waar Seyna wop wop wop wop wop citta daa binde li bee ngeen rim téere ba ne ko lépp luy waay di gën a neex moo gën a dëgër moo gën a wóor

dëgëral nee na yëngu mu ngay wax ak Sika Mbaye leen moom Gandia Fama mu ngi ànd ak grand essence Seydi Aliou Diallo du Dubal jagle Gandia Fama nee naa ñaari doomu ñoom nee naa la ñi bu ñu dajee làmb day neex ci si ko le 29 avril 2024 eehee du bala ngay jot mu tu balang du bala ngay waaja pare waaye gaañ fa ba tey mu ngay sottee ko ay biteelam ganja Fama a ngi sotteeku ay bitéelam ba tey boobay dernier bitéel bi wala num demee noonu yee dubal sempino ñam loon wa wa waaw day yëngal doomu jagle baa ngi noonu ndeysaan oo oh, Gandia Fama am na lum toj Gandia Fama lum toj ni nda wala and wo oh, pop pop pop grand sa sey dee ngi noonu grand essence sey di lu ko jox ni kanar laa ilaaha illallaah woo Gànnaar ay caabi indi tey tëj na loolu indi waan na beneen Gànnaar wop wop wop dugul si géew bi de laay Gànnaar gële fuñ koy tëj xiir la xiir la wala lan laa ilaaha illallaah grand essence yi dañ koy wóop wóop wóop ah, entrée tere mystique tere explose jëla ma loolu lii lu mu lan na grand Issa Seydi lu muy def nii wóop wóop wóop wóop wóop ci lomb ak la mu lomboo eh, eh. looloy xanaa damay tëj gàncax ba kenn du mën ci moom dara mbëy di tànk ya ii gas na samp sa béjjën ba am na lum sa dugal suul ko sey làmb làmb ak li mu làmboo làmb i bagaasam yii ba tey pareegu ngay toj ay pëftan waaye joo joo ngay dugg jordaana ngay dugg ndeysaan la ilaha illallah waaw waaw laa ilaaha illallah nee naa la bàkku nag bàkkum njoole ci gën a mit billaahi wal kitaab njool Géant da nga may fàttali wóoree yëngal dama koy yërëm ñëwaan na fii du yomb waaw waaw ma ne ko affaire yi commencé guñ waaw waaw Fodé Missane rëj rëj waaw waaw Fodé Missane nee na na gën a gaaw la ilaha illallah saa gaay ne ñi ne nañ ko set mooy def ay débat débat boobu ganja faama li jëndiwul wax ji eh eh dëgg dëgg dëgg dëgg waaw laa ilaaha illallah ay fecc ci kanamu daje lépp sa koore jële ma dubal man gàncax faama ay bitéelam baadu jeex jame gàncax yi noonu Mbacké Fama Dramé bu Gandiaye ak Moustapha Ndouba bu Djir Ndaw amadi Gajah Fama Kaporal. Safan Bab ak Gajah Ganjo Fama ak Kaparol La ilaha illallah Sawayan kay jemambot ee Gandia Fama daan na ko Gandia Fama daan na caporal ee mu ngay yëngal Gandia Fama daan na ko la ilaha illallah ee la ilaha illallah jóge génn combat bi du yomb si geesu Babou Diagne Petit Sélé nee na ma lool lamb ji neex na ma ne ko damay doog a ñëw Sangaku xoolal lool lamb ji 11h waɓe dandi Yeah, yeah. combat bi ñëpp doon xaar Gandia Fama ak Dobal tëkkuwante nañ démb ba tey ñu ngi tëkkuwante Gandia Fama nee na ko tey siis Dobal ni ko tey ginnaaw gi du laal suuf lépp dina leer léegi ci biir Arène TV ak la Lion des Lions ko ragalu lool fii si Sangaako le prince du Ndiombato ak Dobal jagle waaye nee naa la ñoo bokk Ndiombato gi nee nañ leen ndànk dubal ba ma leen mujjee seetaan kaarang la woon Safa Ndiaga Coy lamb jooju Fallou Ndiaye moo ko organisé boole leen baare leen demi-finale bi ah Fodé Missane du dégg li ma wax du bëgg a dégg li ma ko wax waaye final la waroon a nekk waaye foo taxaw na final kalkil bi dina bari ndax ñaari mbër dem ba tay ñu ngi wonte doomu jagle bi doomu sokon bi doomu mbulum bi doomu mbul jàmme bi waye mu ngay dajje kan ganja fama éehée doomu posing kan bi doomu beten tv, borom misira borom kuta borom bani borom ne eh. Fodé Missa nee na leen gaaw leen ci lamb la bokk ko Fodé Missa nee na leen gaaw leen fo laa ilaaha illallah Gandia Fama nii la defoon keroog CFA ak ki nga xam ne moo di Babou Soudiane sa ndangaan sam ci lamb la bokk yaayoo eh mes gaayam na ma doon ci boo déggoon séeréer fii barki rasulilaay waaye yàlla baax na yàlla lu mu def lu nekk am na lu tax mu def ko man taalibe Serigne Fallou bii waaye baax na waaw waaw baax na rek Bourane ne maa ngi lay ziar waaye maa ngay ziar Ismaïla doom yaay borom Diofior du ma fàtte jantal Mara borom Mbour waaye du ma fàtte Pape Diop borom Ndiabou wop wop Jackson Ndiaye maa ngi lay ziar doomu day liñ coo global business service ndaanaan bi ana bandi 40 ans ne ko namu jaare beel bandi moom jaare mbay ma doom ji ziare naa la kenn moom nee la chaque jour mu génne ma ci te sonnul tàyyiwul yàlla sa jàmm yàgg doomu njuwaar bi ma ne ko mbokku mbaay Abdou Jaare yee Jaare mbay nee la ku bëgg wala béton wala bagage ouvrier mu nga foofu sa poulailler ndeysaan en face poulailler magasin bu mag jaru nga may xool Jangan ma reetaan faa di wax lu may xoolee di ma reetaan yéen tamit man bëri xaw ma lu tax yàmba ñii di ma wong ñii di di ma di ma di mulai sama dénkaane bi leen jahal jaru mu leen di jaaxal ndax léegi Fadiga bu l'ambassadeur de la paix le ci de la de l'arène pour toujours oh l'ambassadeur de la bruit moom Asson Ndong goro ay Ndong ak la Lion wa wa maria ya. japa joli baa ngi doomu olof ci bir biir man la la Lion taalibe Sëriñ Fallu bi naar yaay entre ak bay biran Fall borom bir Arène TV borom petit corne ko loolu waaye doomu ndey joor de ak mama ndey faatu adama jëli ngom nee naa la demi final bi mat cinq minutes te benn effort amul atte leen jox leen ku nekk benn mo sëriñ wa wa wa wa vocal fàtte naa wa vocal dama leen ci bëre combat bi la ñëpp doon xaar Gandia Fama ne na ñëpp lay rey ñëpp lay boole tey si ji tubal ni gi du laal suuf ah dama ni nañ leen xool nu wan leen di mu jekki ba tëb ku si yàqoon wax ko jàmbur na ko defaraat si diggante ñaari bëri kii ni woon lay ray, kini ni gi du laal suuf ma

làmb ji li nekk si ay moto Double am na lu muy signalé laa ilaaha leen di door ku nekk benn avertissement bu la atte rek di soufflé waat del door avertissement oo oh, ñëw na mbëkk nee ko xool leen ko combat tension la arbitre yi dafa ngeen vigilant waaw waaw eh, Fane nga xool waaye arbitre ba tey joxe woo avertissement te bu avertissement amul fi ne nii beneen cinq bu jëyee plaignant dina am ah, ah. waaw waaw Gandia Fama ngay attaqué daa bëgg am ngemb la jàpp na ngemb la Gandia Fama jàpp na ngemb la laa ilaaha illallaah Gandia Fama tibb na ko dubal bañ na eh dubal sa ñaawaay Gandia am na ngemb la da koy yëkkati wala dubal a ngay bañ laa ilaaha illallaah Gandia Fama jàpp na te dubal jàpp laa ilaaha illallaah dubal tamit jàpp na dubal li na ko leen mbooloo mi ci biir géew bi da doy waar la presse di ñoo baatoo Fama ak Fodé Missane daan na Petit Sélé la ilaha illallah ba waaw waaw Kadia Fama daan na ko waaw waaw Fodé Mbissane waaw waaw fair